mbokk yi ñëw sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot nag nii leen koy daal di amalee ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM ginaaw bi ñu leen santee gërëm leen bu baax yéen mbokk auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo suñu mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne ay safoo suñuy programme ci rajo Rewmi FM te nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci daral ki nga xam ni moo di du jara nekk rek bokk moomeel bu pikin Nord moom la ñu am tey mbégte di dalal fii ci émission gox bi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah Wemba maa ngi lay nuyu di ñëpp ñuy déglu waa Rewmi FM. Mhm. Euh, ci Sénégal ci bitim réew ci Pikine mhm. rawatina waa Pikine Nord damay faral di wax ne mhm. euh, ñoom ñoo ma safoo ma safoo leen moo tax mhm. toujours dama leen di baral nuyoo waa commune de Pikine Nord am na dañuy ubbi rek benn entre parenthèse bu ndaw 14 février am na lu muy def ci nit tey ñu bàyyi la sa nga lancé message bi li nga xam ne moo jëm ci mbirum Saint-Valentin ban kàddu nga mën a yëkkati fasal ko jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di waaye dencante yi waaw madame madame première dame Ndeye Diatou Diène Diarra mhm. mhm. di sama soxna ndax euh, man gëmuma Saint-Valentin mhm. mais moom daf ko gëm euh, sama nekk ci kaw lal bi laa yow fekk fa ay kado yu dul jeex ci ci dàll ci ci bijoux ci peignoir ci pyjama ci serviette euh, ci ci ci ci ci may lekk yi añ beeg reer bi gis muy préparé ma xam ne lii neex na ko. Mhm. mais man en tant que euh, philosophe. Mhm. gëwuma gëwuma Saint-Valentin. Mhm. xaw ma man bés bu nekk Saint-Valentin la ci man mais comme Sénégalais yi dañ koy feetu. àdduna bi di ko feetu. dañu bokk ci Sénégal bokk ci àdduna bi. ñëpp ñi koy feetu maa ngi leen di souhaiter joyeux Saint-Valentin. amoureux yi. nañu xam ne yàllaa ko digale. yàllaa wax nañu bëggante. te nit. homme avec grand H. Mhm. mooy représentant euh, yàlla ci kaw suuf. Mhm. kon bëgg nit. Mhm. ba amoo ci sago. dara dara dara ko. kon tous les amoureux et les amoureuses. le maire Amadou Diarra vous souhaite Saint-Valentin. di mhm. leen wax euh, step by step. ndànk ndànk. Mhm. bu leen fot quoi damay bañ ñu fot. am na solo am na solo mu nekkoon rek message bu ndaw bi nga xam ne ñu ngi ko doon euh, jagleel ñi nga xam ne ñoom ñu di way dencante yi alors monsieur le maire dañuy waxtaanee ci njëlbeen coronavirus xam nañ ni moo lëmbee àdduna euh, koom dematul li nga xam ni moo jëm ci jàngoro ji continuer di faat ay bakkan monsieur le maire sa jàngat bu njëkk ci coronavirus bi nga xam ni moo sanal àdduna wërngal këpp. waaw lim très rapidement parce que émission bi comme une la. Mm-hmm. te man li ma li ma taataan dafa bëri une pour man xaju ci. ma mm-hmm. kon ma def style télégraphique. Mm-hmm. mu leer. te bi mooy man li ma gëm mooy li xalif général des Tidiane wax. mooy du feebar balaa la. donc sarax ak ñaan rek moom ci mën a musal. pour man yàlla mooy wane boppam déglu naa benn fanaan Iran Ndaw la. mu ne yàlla dafa leen tere accolade góor ak jigéen. Mhm. dafa tere jigéen ak góor du nuyoo. Mhm. mais léegi gars yi nuyootuñ. mel ni corona bi dafa ñëw ne leen sorante leen. Mhm. ça veut dire que danqaloo boobu ñu doon danqaloo te lewul. corona bi léegi tiital bi mu tiital mbindee fi. daf leen tax jël seen distance fenn rek la ñuy gaañ mooy ci wàllu julli. Euh, barke bi am ci dem juma. barke bi dem ci dem màggali barke bi am ci dem gàmmu. am ko dem ci aji màkka rassemblement moo ci moo ci moo ci li ma metti man. Mhm. le fait que ñu suspendre ko. Mhm. wala ñu wàññi ko. Mhm. Euh, corona bi foofu la saay saayee. donc dafa mel ni daf ñu empêcher suñu diine. nit ñu ko defee. nit ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam modèle bu mu ñu indil. ñu moytu boobu. di def beneen modèle bi nga xam ne Europe moo ñu ko gëmloo. muy cet individualisme la bopp sa bopp kenn ku nekk faale sa bopp. loolu ñun gëmuñu ko en tant qu'africain en tant que sénégalais. gëmuñu ko en tant te fii dañuy wax distanciation physique sorente leen yonent bi waxuñu loolu nee na jullit beeg moroomam na mbaggam mbaggam laa tànk nday kii ak tànk càmmoñu kii nañu nañu laalee mm-hmm. loolu li ko li tax yonent bi wax ko du neen mm-hmm. parce que kooku du nit yàllaa ko yónni mm-hmm. donc su ko corona di empêché daf may metti donc nañu xam ne ñun dañu war a ñafanteeg kooku di yàq ay ndigal kooku di yàq ay digle yi nga xam te ne moom la nabi sallallahu alayhi wa sallam indi mhm. war nañ xeexante ak moom c'est virus la c'est mhm. comme jaan bi su duggee ci dëkk bi bëgg a faat nit ñi mhm. dañu war a fagaru mais lii nag kenn mënu ko gis donc ñoo war a am intelligence set beeg porte masque yeeg yooyu ñu def ko ngir ab diir mu jeex mais gis naa ne jeexul pourquoi parce que bu ko ñii di moytu ñee ñoo koy indi di ko dugalaat ci biir kër gi muy faat ñu bëri loolu moo ci may masawu yëkkatil ñu ko. ci mhm. ni ko xalif yëpp waxee. Mhm. digale ay sarax muy euh, xalif général des Mourides xalif général des Tidiane. Mhm. ak yeneen nitu diine yi li ñu ciy wax. nañ ko jëfee te essayé ko pour que mu gañ. justement implication mairie bu Pikine Nord ci deuxième euh, vague bi kenn du wax première vague bi ndax am nga ci ay jéego yoo xam ne euh, mu ne te kenn du ko jeex mi ngi fi donc deuxième vague bi ndax Amadou Diarra ak équipe am wàcc nañ ci terrain bi dooraat liggéey bi comme ni ko defoon ci première vague bi. waaw la nga bëgg ma wax ci deuxième vague bi mais nag mooy may wax tuuti ci première vague bi parce que comme ni nga ko waxee mhm. lu ne fàng lañ ci def soixante huit millions ko chiffré ci mhm. li nga xamante ne moom la service yi mën a gis mu jaar ci traçabilité budgétaire mhm. li nga xamante ne poste monsieur le maire laak li nga xamante ne partenaires yi ñoo ñu koy may ñu defaat ko ci boo ko xoolee ëpp na millions ci li ñu def ci ci corona bi ci première vague bi mieux le 4 la ñu déclaré Sénégal xam nga le 2. le 2 ne corona mm-hmm. dugg si na Sénégal. Mm-hmm. le 7 le le préfet de Pikine woote. Mm-hmm. une commission départementale pour ñu wax ci. Pikine juróom fukk ak juróom benn maire la am ak. la maire de mu 17. am na solo 17. yooyu. ca ba ñu waroon bokk noonu man kot dong maa ca teewoon. loolu l'histoire retiendra. falaa tiitee xam ne war nañ fagaru ba ma génnee foofu. gàpp laa jaar. jënd ay bagages génne xaalis jënd ay bagages ci marché Zing. Mhm. jox ko daara yi fa ay femmes groupement yu doon préparer huit mars. Mhm. mën na leen seen huit mars bi. Mhm. def leen ko une sensibilisation contre le corona. bu leen ko def Mumbaay. jox leen valeur huit cent mille. ci ay bagages pour ñu jox ko daara yeeg jàkka yi daaru xudus. parce que femmes yooyu ñoom Abi moo ko jiite. madame Djigo Abi Ndiaye. mu ne maire dañ la jagleel nga parrainer sunu huit mars. man leen manifestation de sensibilisation jox leen mooy yooyu donc foofu laa njëkk a jëfee. Euh, donc c'est le 8 mars c'était un samedi. lundi. ma dugg ci ñaari poste de santé yi ma loi bi dénk. ma nekk maire war ko gérer ma laaj leen seen ndugg ci weekend bi. ñu wax ma ko ma nduggal leen lépp lu jëm ci hygiène nettoiement lépp. marché Zeng moom ñëpp xam nañ ne RTS ak. Mhm. préfet Pikine nag ñëpp xam nañ ne marché Zeng a Euh, ni ñu ko gérer c'était la meilleure gestion. ba mhm. RTS jox ñu modèle. Mhm. ñëw téléviser ko ma ànd ak ñoom ci ndigalu préfet ne leen bu dee da di xool corona ab maire bu ci def dem leen Pikine Nord. bañ ñëwee dañoo fekk ma jël trente jeunes ay sentinelle kuy hmm. dugg da raxasu jaaykat beeg client bi ay xeex sax am na fa hmm. da gis Wemba wàcc ci kat katam laal gelam ñëw bëgg a dugg ci marché bi ñu ba pare hmm. amuñu ci police commissaire yëg xam na ci dara dem nañ ba am ñu ci nar a dem tribunal ndax toj bopp ndax dañ la ne doo dugg ci marché bi tànk jëloo say mesure da ngay takk masque da ngay raxasu soit eau javel ak ndox soit nga wut sel. Mhm. ñu doog lay bàyyi nga dugg. donc mhm. loolu pendant deux mois ma ñu fay xale kenn ku nekk quatre mille. Mhm. ay jeunes yoo xamante ne bokkul ak agents municipaux yi donc création d' sax am na ci. ASC yi dama leen jox seen subvention cinq cent mille par ASC. jamono bi ñu nee amul maire yëpp jël seen fonds viré ko feneen. man ma ne ASC yi dama leen jox pour impliquer leen. en tant que waaw pour ñu bokk ci xeex bi en tant que toutes les ASC. ñu jël téer yooyu 500000 li ma leen jox ñu commandé téer yi. Mhm. téer yi ñoom it am lu ñu yóbbu seen kër parce boobu ñoo ngi jooy ne amatuñu lu ñu liggéey. Mhm. donc bref. Mhm. première vague bi loolu laa ci doon def. mais li ma koy conclure mooy ndekete man damaa sobte waane. <laughs> lu tax loolu. parce que man feebar bi indiwuma ko fi. état bi am na 1000 milliards. 1000 milliards yi joxuñu ci 15. waaw lu ma doon rey sama bopp di jël li nga xamante moom la ñu waroon def waroon def ci jàkka yi. Mhm. waroon def ci école yi waroon def ci yeneen. bien que école yi def naa ci plus de deux millions huit cent. ñu mhm. waxeete euh, examen yi dañ koy def classe CM2 yi. tegi mhm. j'ai eu huit cent cinquante et un candidats. Euh, en sixième. ku ci nekk jox naa la gel de poche. plus trois types de gel ba ci spray yi. pour pompe buntu yi jox aussi valeur u deux fois six cent vingt six six cent cinquante mille. conseil communal de la jeunesse pour ñu fay ay xale ay volontaires pour ñu encadrer xale yi pour mhm. éducation donc bref mhm. dama jàpp sa première vague bi dama ci dama ci sob dama ci waane mhm. ndax fonds yi ma jël commandé naa ci vingt cinq millions de recettes de de fonds pour def ko ci vivres yi ay ceeb dawlin suukar tàndalma meew en dehors li li état bi di joxe te li état bi di joxe tamit def naa ci combien de xaalis pour jël ceeb bi ñu stocké ci théâtre de verdure mooy lieu communal bi yóbbu ko ba ca biir quartier ya soit ci jàkka ji la. wala benn kër bu nekk ci chef de quartier bi ma teg ko ci loxo comité bi ma teg leen fa. jox leen crédit pour ñuy woolee les jox leen gel jox leen masque. ba jël si beeg yëpp. mairie bi moo ko fay indi leen ko yombal leen ko ba dangay jël sa doom mun na yenn saako yam yóbbu. te du jël du luwee taxi du luwee camion du jël saret donc loolu ba mu paree. ma dégg ñu naan état bi am na 1000 milliards. xawma François Ndiaye. Mhm. moo ko jiite général François Ndiaye. Mm. mais ñu doon xaar. Mm. que les mairies sont impactées na ñu jox dara. jotoo leen ci yéen ba léegi boobaa léegi faalewuñu sax. Mm-hmm. malheureusement le président des associations des départements bokk na ci. Mm-hmm. le président Aliou Sow Aliou euh, Sall. Mm-hmm. président de l'association des maires bokk na ci. wax nañ gauche wax nañ droite mais bon kaasal nañu te faalewuñ leen. man wax naa ci mais John le secrétaire général wax na ci dégg naa yeneen maire ci kaas ba tey faalewuñu donc deuxième vague bi su ñëwee. taseeg mois de janvier. Mm-hmm. ñuy doog a voté budget. si recettes yi doog a dugg permet juste. pour mm-hmm. payer les doo mm-hmm. fi waane di dugg ci ay bor. donc maanaam kon implication bu doon xaar. première banque suñu loxo la est-ce que <laughs> ah deuxième vague bi banque suma loxo bu ñu état bi joxee moyen baax na ñu def ko ci. bu ñu joxul moyen suñu moyen yi dikkagul du ñu leb di ci def dañuy toog xaar ba mu dikk. loolu moo ci moo ci danger. kon da ngeen di bañ erreur bi leen daloon ci première bi mu. dalal ay bor lañ ci am man par exemple onze fournisseurs. seen dossier dañ ko retourné mujj ñu leen fay y compris des écoles nga xamante ne xale yi laa fa yóbbu woon avec des prises en charge scolaires mhm. mais ba fay jotee ñu bloqué corona bi ñu tëj école yi je me suis dit tëj na fonds yooyu nekk foofu nañ ko def ci dund bi mhm. jënd ay ceeb ak diwlin ak jàppale gars yi mhm. ba ñu paree école yi commencé dañu fayeku élèves yi bëgg a dem jàngiwaat ren ñu ne bu ñu fayul daaw alors que daaw la nekkoon pour ñu fay leen ko communes yi. Mhm. pour jox leen pour communes mën a taxaw ci xeex bi et là Mbemba je te dis. Mhm. l'erreur de de mhm. à ce niveau là c'est de pas comprendre que le corona c'est une bataille communautaire moo ko war a régler c'est-à-dire yow booy ubbi sa émission da war a wax ci commune corona artiste bi daa war a woy corona d'accord. kii def sculpture sax daa war a microbe bi da ko war a dessiner di ko sculpter ñu koy jaay. ñu jaaykatu bijou yi wut ay chaîne corona corona dañu war a def. une bataille communautaire une implication inclusive à la base. ba ay yi élèves yi xoolal léegi nawetaan amul mais boo yaa ngi football partout ci biir mbedd yi. partout ruq boo dem xale yi dañoo nam football kenn mu leen tee. comme ñu nam football dañuy dugg bés man démb rek lañ ma pare ne ay ay final de tournoi. minime cadet da ngay joxe mais munoo dem. Mhm. parce que kilifa nga munoo dem di valider yu mel noonu ay rassemblement alors que tere nañ ko. Mhm. ça veut dire quoi ça veut dire ñooñu conscient wuñu la base n'est pas consciente. Mhm. l' prend des mesures au niveau central couvre-feu état d'urgence catastrophe euh, sanitaire. mais ça ne tient la route si y a pas une implication de la base. na ci imaam yi continuer di xutba. avec insistance na ci kilifa diine yi di wax. Mhm. parce que c'est eux les gardiens de nos âmes. justement couvre-feu bi le vingt la war a jeex euh, daanaka ay fan ndax yow ànd nga ci ñu yëkkati ko wala ñu. Euh, euh, généraliser ko nañ ko yëkkati xam nga couvre-feu vingt heures vingt une heures moi je dis au président Macky Sall en solennellement je lui demande que. Mhm. c'est vrai que y a des stratégies nag xam nga état dafa am lu muy doxee. Mhm. Euh, ñun naanaan lañ parfois miir yi dafa am yu muy demee maa ngi nii naan def naa lii ci première vague bi maa ngi laaj. <laughs> état aussi du Sénégal dañ koy naan loo def ci corona bi. ba tey boo demee FMI laaj cinq de dollars ñu jox la ko. <laughs> mais bu fekkee état Sénégal yëngatuwul ci corona. <laughs> gisuñu ko muy jël ay mesures anti corona. alerte àdduna bi ni ñun nous vivons le corona et que voilà boo leen di jàppale ay état boole leen ci pour milliards yi si. kenn du jox. naan au Sénégal les gens ne vivent pas le corona. Mhm. boo bëggee tukki sax ñu ne oui y' a aucune mesure au Sénégal sérieuse contre le corona donc les Sénégalais ne voyagent pas dans le pays. donc ñu yëkkati ko ñu bi. li ma bëgg wax foofu mooy. Mhm. je comprends l' état mais ça suffit. c'est-à-dire doy na quoi. Euh, boo nee gars yi du matin génn leen di roofalante. te leen dem ci marché yi 6 heures du matin 5 heures. 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi 1 heure 2 heures roofante leen dugg ci rapide yi ci kaar yi dem leen Asalem dem leen Zeng dem fu leen neex mais boobu jamono yooyu mënuñu ci am corona. 21 heures nga ne léegi yéen corona bi ngeen jëli woon ci mbedd mi diggante 6 heures matin ba 21 heures. Mhm. jël leen corona boobu ngeen di tekki ko en dem leen roofante ji pour am corona bi diggante 6 heures du matin ba 21 heures parce yomb na ngeen duggante yomb na ngeen roofalante yomb na ngeen di joxante loxo et cetera mais 21 heures bu kenn génn na corona bi ak yéen ñi ko jëli woon ci mbedd mi na ngeen toog seen biir kër ci ci ci ci kër yu xattu Sénégal yi. Mhm. ci famille bi dafa lëwal jox ma kaas mën naan kii corona boobu ñu for ci mbedd mi ci bëccëg bi. Mhm. ba 21 heures nañ ko tas ci biir kër gi loolu lay tekki. nañ bàyyi nit ñi xam ne vingt une heures vingt deux heures vingt trois heures vingt quatre heures minuit. Mhm. ba une heure du matin jamono yooyu. Mhm. kenn génnul copain. Bamba da ngay dox ba minuit ak seddaay bi nii. mais dañ dema fenn donc bu ñu defee couvre-feu bu ñu deful couvre fa mhm. vingt une heures normalement su demee ba vingt deux heures minuit. mais nit ñi dañu dem seen kër par force avec ou sans couvre-feu toog foofu. restez chez vous bi rek couvre fa la woon. parce que bu ñu continuer woon sensibiliser restez chez vous. nit ñi bu ñu demul jëndi farata. wala ñu dem ci boutique ba dox farata dellu si. doo gis kenn ci mbedd mi. donc restez chez, chez vous avec une sensibilisation médiatique forte. Mm -hmm. avec l'implication communautaire forte. moo gën a pertinent couvre-feu. couvre-feu justement. dindi couvre-feu bi man je demande au président Macky Sall solennellement. mu dindi couvre-feu bi. pour une autre raison. parce que commerçants yi sonn nañ. Mhm. les commerçants pour bañ tëdd seen kër ñu leen di fayeeku courant. di leen fay ndox di leen fay ko seen doom yi war a fay scolarité ñu war a def bii maanaam lekk bi. Mhm. dépense quotidienne mais commerçant bi soo ko nee léegi da ngay wàcc cinq heures mais attends mooy yow bu bul jaay quoi. yaa a une crise sanitaire qui est là buy dal ci kaw sénégalais yi. Mhm. léegi nañ ci yokk une crise économique bu commerçant yi jaayati. même ba da ngay bëgg a jënd nga xool heure bi muy 17 heures doo jënd donc tu es en train parce que le le, le service d'achat mhm. doxul heure boobu commerçant bi aussi bu waroon jaay dix-sept mille vingt mille mhm. moo ngi commencé jaay deux mille nga ne ko arrêtel donc ci weer bi yaa ngi koy créer problème après locataire bi moom it corona bi imputé ma boo génnul ma génne sa bagage toroxal commencé donc il y a problème nañu bàyyi nit ñi ñu génn. Mhm. jaay duggalante bii une du ko bloqué. Mhm. man gëm naa ne corona bi. Mhm. bu bu bu duggee ci million nous nous sommes combien quinze millions. su duggee ci quatorze millions yëpp. ñëpp quatorze millions yëpp. ak ah. ni ñu yàlla bindee. ak Équateur bi ñu nekk. pays bi ñu nekk. corona bi ci biir yaram yi lay dee. parce que quatorze jours su passé ñëpp jeexal ko. ñu dox si la man mii di wax ak yow est-ce que corona wu ma quatre fois musuma dem hôpital damay jékki-jékki saqat fi naan man mbaar corona waaye nii nii ñu ne ma corona xam nga xaw a tiit mhm. yaram bi diis mhm. ma man roofante lu yàlla naa ko teg ci foi ci ngëm mhm. naa ko bàyyi ak yàlla c'est pas pour dire parce que je suis c'est pas pour dire que na ngeen woyafal yi maa ngi nii takk masque bien sûr nañu jël masques yi au sérieux mhm. bloqué wu mhm. nañu protéger wu contre le virus mhm. mais état bi les mesures nañu bàyyi dans ces protections là que les activités économiques continuent 628 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 mun ngeen itam dugg bokk ci émission bi mais monsieur le maire ñu ne vaccin bi moom moo war a mën a faj ci ñu bari ndax euh, tey euh, ñàkk bi anam gi ñu war a sensibiliser nit ñi ba ñu adhérer ci cose bi ni mel état bi mu ngi koy def. bon man man personnellement moi je suis une autorité euh, décentralisée. Mm -hmm. je suis acteur politique. bien sûr xaw ma dara ci vaccin bi. te tey ñu ne Pfizer. Euh, yeneen ak yeneen ak yeneen voilà ñu ngi. dara leerul ci man. Mhm. te man intellectuel la ñaata ñoo dul intellectuel. ce que les anti-vaccins disent sur le net maa ngi koy déglu. mais bu ciy dëgg je suis pas un scientifique je suis médecin je suis pas infirmier je spécialiste de la santé xawma lu ñu ciy wax le contenu du vaccin xawma ko gis naa ne rek d'habitude c'est c'est le c'est le comment on appelle le microbe en lañ daan atténuer mhm. atténuer mooy lompañal pour créer un vaccin vaccin mooy li lay fagaruloo pas li lay faj sérum mooy faj mhm. sero mooy piqûre bi ñu lay duut bi nga xamante ne feebar nga siburu ba pare piqûre bii ñu la ko piqûree jox na ko nga wër mhm. mais vaccin mooy siburu baa ngi dikk dañ lay vacciner ngir bu ñëwee mu aar la léegi dañuy jël doomu jàngoro bi lompañal ko ba mu lompañ mhm. ñu jox ko sa yaram ne ko kii moo lay waaj ñëw di la attaquer si nag corps bi ñëw woo militaires yi ci biiram jël leen seen bazooka taxaw leen ci frontière bi waa ji gis ngeen ko nii la mel su dikkee xam nga fu mu toll nii dafa lompañ mun na ñëw ak doole yéen préparer leen su egsee rek rey leen ko loolu mooy njëriñu vaccin mais nee du forme boobu beneen forme bi moo tax gars yi tiit ci d'accord moi je je awma ci aucune preuve mhm. alors c'est à nos médecins à nos intellectuels santé de faire des émissions mhm. de faire des communications et des vidéos comme li ñu waxoon ci Artemisia xaw ma bu nekkoon Madagascar. Mhm. Mhm. les gens ont vu di docteur Daouda Ndiaye que je salue au passage. Mhm. dénk nañ ko ko pour ñu saytu ko. oui mais c'est un pays li mu découvrir ne day faj corona ñoo ko dénk un spécialiste ici au Sénégal pour ñu sayt ko mais li Pfizer wax xawma li ko ma kan euh, Bill Gates li mu indi sénégalais yi kenn du ko contrôler dégg nga ñu ne médecin yaa ngi koy gëstu. Mm-hmm. moo tax sénégalais yi xaw a. am jaaxaajëf si léegi nag mm-hmm. ces intellectuels spécialistes en santé ñoo war a jël leur courage à deux mains. Mm-hmm. dire au gouvernement du Sénégal comme ñoom professeur Seydi. mais donnez-nous les contenus des vaccins ñu saytu ko pour dire aux sénégalais on vous rassure vaccinez-vous. le président Macky Sall c'est notre président mais il est ingénieur. en géologie. il n'est pas médecin bu ñu nee bi baax na kan moo koy gëm. mais bu ñu nee professeur sàngam moo ko wax. mais dañ ne wéy xëy na gëstu na ko ci la laboratoire ak ay naatangoom. pour wax ne vaccin bi amul problème def leen ko man awma ci benn problème lépp luy faj sénégalais mun nañ ko indi mais l' information une obligation dans un pays de démocratie. Mm-hmm. on doit informer les sénégalais et laisser la liberté de pouvoir choisir. Mm-hmm. on vous vaccine par la force amul fenn. Mm-hmm. dama bëgg a faju aywa demal kii mën na am téere bi ko maamam jox wala sëriñam li mu tufli ci loxoom la gëm mhm. bu ko neexee mu bañ a vacciné man li ma bëgg mooy balaa may mun a wax fi ma toll man mhm. vaccin dem leen vacciné sama commune bu ñu ko fi indi woon ma njëkk a vacciné wu naan population bi ñëw leen vacciné wu dañ may communiquer ci vaccin bi mhm. son contenu ses risques ses effets secondaires ba ma xam su ma xamee ba pare. Mhm. ba mu doy sama xel mun am ma juum. Mhm. mais sama xel bu ko nangoo ma doog cay ma doog mhm. cay dem. loolu da mun ci woote ko voilà loolu la ñu ubbi woon ci pàcc bu yaa doon waxtaanee ci Covid 19 bi mais ñu ñëw ci gox bi gox bi nag euh, ab diira ngi yaa ngi jiite euh, commune bu Pikine noor monsieur tey. am na ci loo xam ne kenn mënu ko naatable loo xam ne lu ñu nit mën a teg sa loxoom la ci diwaanu pikin noor Euh, damay jukki rek jukki jukki exemple bi nga xam ni moo di réhabilitation bi nga xam ni door nga ko ci diwaanu école neuf ndax yaa ngi ci fan nga toll ci liggéey yi. ah oui euh, mooy euh, école neuf dafa am juróom-benn classe yi nga xamante ne depuis 1958 lañ ma wax xaw ma boobu judduguma en tout cas. Mhm. donc c' man judd après 60 laa judd. Mhm. mais c' avant 60 lañ ko def. Mhm. lañ tabax école neuf. mais tabax bu mucc ayib sama yaram dafa daw keroog bañ koy toj. première démolition bi. Mhm. ñu ne maire kaay dóor premier bi. man ak ña fa àndoon. Mhm. même ki gañ a marché bi toog nañ naan mais est-ce que war nañ ko toj. est-ce que mënuñu téye architecture bi. Mhm. bâtiment bi. seet luñ ci yokk ñab ñabal ko mu yëkkati. waa direction construction est-ce que leen oh c'est toj leen rek ngeen defar bu bees. ma nag naan est-ce que dinañ defar lu gën a dëgër lii. pour delloo njukkal ña tabaxoon. école neuf <laughs> billahi Wemba. Mhm. c'est des c'est des gens très sérieux qui mhm. ont construit quelque de dur lu dëgër la ñu tabax mais sol joor mhm. école neuf boo ko xamee di nga xam ne école neuf suuf si dafa mel ni day wadd wann bâtiment day jékki-jékki di suulu wala le phénomène de l'érosion du sol da ngay jékki-jékki xale yi day mel ni ci pax la ñuy jàng si alors ma nekk maire une fois avec l'acte 3 de la décentralisation mhm. suñu vocation bokk ci tabax ay infrastructure mhm. ma ne naa dem xooli ko ma xool gis ma ne lii dinaa ko defar dinaa jël suma budget defar ko mhm. deux ans après le mais le chef de quartier Cheikh Ahmed Tidiane Diop moo a invité woon seen conseil de quartier bi benn assemblée générale ñuy ñaanal néew Daaru Xuddoos quartier Daaru Xuddoos set setal seen koñ wàccee ay kaamil ma ñëw fa mën a leen nag fii ñu koy defee nii classe yi ñu jàkkaar lool juróom benn classe dinaa ko raser dinaa ko tabax mhm. dama ko déey ma ne ko monsieur le maire mun naa wax lii promesse la de mais bëgg naa ko def mun ma waaye waxal ma wax ko deux ans après ba may dégg dina ko def du ko def mhm. far yàlla def ñu éligible ci fonds PACASEN ma def ko une troisième priorité ma ne au lieu may jël sunu dërëm yooyu di jóge ci juuti yi mhm. ak sunu ñetti dërëm yi di ci fay salaire. di ci mm-hmm. def ay subvention di ci jàppale jàkka yeeg yooyu. di ko tabaxeelee. Mm-hmm. fonds PACASEN bii nga dikk te bokk ci budget bi nga xam te ne cent vingt cinq ñoo ko gagné ñoo ci éligible ma bokk ci. Mm-hmm. may fàttali ne fonds boobu ci budget commune bi lañ koy def. maanaam président Macky Sall du la wax am fonds bi dugal ko école neuf def ko ci éducation mbaa def ko ci santé mbaa def ko ci environnement. da lay ñëw rek commune bi gagné na fonds fonds fonds. foo koy dugal le ministre ñëw. Euh, Omar Gueye ak séddale commune bu nekk ñaata ngay am boo ko jotee yow maire yaay ñëw woo sa conseil municipal parce que maire mooy élaborer mooy présenter budget mhm. le code des collectivités locales moo ko wax c'est le maire qui élabore et présente le budget au conseil donc kenn sexalu ma lem mhm. kenn pikiru ma mhm. kenn vacciné wu ma man ci sama teeyu bakkan ak promesse ba ma promettroon waa quartier Daaru Xudoos ak bëgg aussi jëf ci wàllu éducation ndax penchant bi ma am ci éducation. Mhm. ma tànn école boobu bu njëkk. Mhm. gannaaw ba ma laalee école cinq defaraat seen toilette yi defaraat seen murs yi dafa leen genre jardin public dem école 7A dafa leen salle informatique defaraat miiru yi nga xamante ne def na 60 ans ma toj ko defaraat ko. Mhm. ma ne naa aaye la nag Pikine Daaru Xudoos école ma toj juróom-benn classe yi tabax ko en hauteur. trois ci suuf trois premier étage dinañ gagné espace yeneen trois classes yi tàllaloon dinañ fa mën a def leneen ëllëg. étage aussi ni ñu koy tabaxee dañ koy prévoir de telle sorte que ku ko bëgg a dem deuxième troisième nga def ko. nga def ko donc fonds boobu ba mu duggee ci biir budget bi. Mhm. ma ne nañ ko jël def ko ci ci ci marché boobu. ok bi voté ko à kenn newul déet. Mhm. donc xam dama bëgg vraiment souvent ci ci Facebook bi da ko lan. Mhm. Oh, ñoo ngi gërëm conseil municipal bi ñoo ko def. dafa mel ni nga ne ñoo ngi jërëm député yi voté budget état bi état bi day defar budget indi ko assemblée ñu voté ko. buñ ñu ko voté dañ koy delloo document bi ci gouvernement bi mu dem exécuté. Mhm. ku ko def ñu ne gouvernement Macky Sall ku ñu gërëm Macky mhm. donc man it ni ñu gërëmee Macky Sall. nañu mhm. gërëmee man Amadou Diarra. man mi am xelu ak yéene wu. jël fond bi. yóbbu ko école neuf woo conseil municipal bi nga xam te ne maa ci majoritaire. far yàlla def xooluñu sax parti politique. ñëpp a boolo à l'unanimité. adhéré voté ko. ñu dem ma lancé marché bi. et puis une façon. dañu def lu ñuy wax euh, audition projet bu ñu ko tënkee euh, in vitro ba pare suñu biir bureau yi. Mhm. dama ko jël yóbbu ko ci biir école neuf foo directeur bi chef de quartier bi conseil de quartier bi ASC yi jeunes yi bàjjenu gox yi ndey daara yi ñëpp dajaloo. Mhm. ma ne leen lii lañ bëgg a def six classes yi bu ko tojee lan moo ci seen xalaat maa ngi leen di déglu su ma paree ci yéen ci laay tënk projet bi di lancer appel d'offre. Mhm. ñu génne fa ay xalaat ma changé lañ waxoon. ba ci handicapé yi sóoraal nañ élève bu handicapé yor motooram bëgg a dugg yor chaise roulante am a dugg maanaam les rampes mhm. inclusives yi ñu war a sóor sóor nañ ko ci biir marché bi telle sorte que mhm. dina am aménagement vert mhm. vraiment style bu moderne lañ ko bëgg a def ba boo ko gisee forme bi su paree. Mhm. dinaa wax kan moo ko mën dama ciy teg benn devinette. Mhm. ku xam forme bi lu muy tekki. Mhm. parce que am na lu ñu ci pensé. donc may gërëm féliciter l' inspecteur de l' euh, de Pikine euh, muy euh, Diallo. ak l' inspecteur muy Gana Sène. Gana Sène l' nga xamante ne impliqué nañ ci. le délégué de quartier les jeunes tout le monde. ak les populations et particulièrement mes conseillers municipaux de Pikine Nord. qui sont de véritables citoyens validation de mon idée. Mhm. ba ñu egg am beneen liggéey bi nga xam ni yaa ngi ko fa doon jëmmal mooy théâtre verdure liggéey ji. Euh, am na dooroon nga ko dafa taxaw lan moo waral mu taxaw. waaw je suis au désolé. Mmh. Euh, désolé de a ici à Rewmi FM. Mhm. ci émission gox bi. Mmh. que bi bind su ma xamoon ni ma ko laaj sax damay indaale kayit bi lettre la ma bind. Mhm. jóge Burkina Faso dellu si ne corona bi manifestation culturelle taxawal na. te théâtre verdure bi samay millions laa ci naroon def. pour def ay programme woo Waly Seck woo Titi fii woo Viviane fii. Mhm. voire même Youssou Ndour ay activités pour que xaalisam bi mu ci dugal mën a génn. Mhm. loolu la ñu waroon def pendant quinze ans nga xamante ne autogestion lay doon. am ci recette. Mhm. co-gestion lay bi mooy jiite le maire mooy ou son représentant mooy présider conseil d' administration bi. am trois représentants dans le conseil d' le partenaire am deux. gestionnaire financier bi partenaire bi lay doon. adjoint mairie bi moo koy désigner. bu ko defee. chaque fois qu'il y a manifestation mairie bi day am benn pourcentage. Mhm. waa ji am benn pourcentage ñu koy toppalante noonu. Mhm. ba théâtre Verdure bi un dina rafet am dimension régionale. ñu mhm. centre culturel Blaise Senghor mel. banlieue bi fii. théâtre Verdure mel ko artistes yi am lieu. bu ñuy manifester woo mairie bi koppar yi muy ñàkk nga xam ne ay abale lay doon ak. kenn du presque du dina dund. Eh, am ay ay yu jógoon. ñëw naan wéy maire dafa jaay théâtre Verdure bi daf mook benn waay nangam nangam. Mhm. alors que c'était pas vrai. loolu amu ci. Mhm. su ci amoon tey duñ dem waa ji bind ma leet ne ma bàyyi naa. ok bàyyi naa ma ne ko lu tax sëñ bi bu tax noon yi ne ñoom ñoo tax. Mhm. wala seen wax tax. on fonce amul lu ci légal bind nañ préfet validé na tout jaar nañ marché bi nu mu war a ja mu ne ma non su ma jëlee sama xaalis def ko ci jamonoy corona ba xamuñu corona bi kañ lay jeex. kañ laay récupérer sama xaalis. artistes yaa ngi marche pour manifester amuñu fu ñu manifester. Mhm. donc man nañ bàyyi ba beneen jëmmi jamono. yow nga dem def leneen man ma def dem leneen suy jamono passé. Mhm. suñu war a dikkaat baax na suñu warul dikkaat ñu xam mais en tout cas man pare naa la ma jotoon def. Mhm. ci première réalisation bi soo ma ko mën a fay ngeen fay ma ko ci lu gaaw mais pour réhabiliter théâtre bi nañ ko teg ci suuf. je suis donc loolu moo tax iñaan baaxul. waaw wax ji bëri dafa bëri moo tax. day tax li nga waroon def ca ba nga ko def te yàqal nañ pikin. waa ji ragal na. xëy na loolu ca la bokk. léegi ana mu théâtre de baa ngi fële mel ni nguunu commencé yàqu. léegi yow loo ci prévoir loo ciy def. il faut que partenaire parce que. doo jël wala wala deux mille vingt deux ou vingt nga jël benn fonds de concours ou de fonds de dotation wala beneen fonds PACASEN nga defar ko mhm. mais say ñetti dërëm yi ngay fayee juuti di fay cent vingt cinq agents. Mhm. di leen fay muy vingt trois millions par weer. mënoo ko jël dajale ko ci ay weeri weeri weer pour tabax théâtre verdure activité culturelle bàyyi salaire yi alors que mairie yi ak seen manque doole bu ñu fayee salaire ci fonctionnement fonds propre rek. Mhm. pour ñu dajale xaalis bu ñu def day am mhm. problème. Mhm. moo tax comme budget bi c'est un tout. fonds yi nga xamante ne moom mooy jóge ci yow ça te permet de faire le fonctionnement. jënd ay facture ay ay ay de bureau. ay équipement de bureau. fay courant yi fay ndox yi ci biir établissement public yi. fay salaire yi. d' accord def subvention yi jàppale ASC yi culturel yi jàkka yi lieu de culture et mhm. nga jël fonds yoo nga yebal ko loolu. Mhm. li nga xamante ne nag ay tabax la ca ya nga soxla. parce que mhm. ñun en fait on ne pas de ça. Pikine bokk nañ ñu ci am théâtre de verdure am na commune am amuñu loolu ñun ak Mbaaw rek ñoo fi am un de verdure. ok dans tout Pikine. donc jur souffriruñ d' école par exemple. j'ai quinze établissements scolaires. Mhm. neuf publics six privés. Mhm. kon man sama projet tabax école benn laa ci am muy Ndiassane. te loolu deux bi laa ko tabax avec un promoteur. Mhm. donc santé am na ñaari poste de santé ba ñett. ñaari mooy bi nekk Daaru Khoudoss ma tuddee ko Imam Madani li maternité bi nekk ci biir dispensaire ma tuddee ko Cheikh Ahmed Tidiane Diop l'ancien maire qui encore vivant. d'ailleurs c'est lui qui est le chef de quartier. de Daaru Khoudoss ensuite ma jël am ñu am municipal 1. bi ma tuddee Ibrahima Sele Ndiaye. Mhm. ndax municipal numéro un dans tout Pikine. Mhm. Pikine Nord la nekk ci kaw tali bu mag bi. ndax Ibrahima Sele moo jëloon këram. Mhm. jamono ñoom euh, avant Kabirou Mbodj même ñoom Alioune Samb. ñoom Birame Ndiaye. Euh, ñu ne léegi fu ñuy def lu dispensaire mu jël këram joxe ko. kooku bu ñu demee ba tabax ko dispensaire muy établissement. boo koy tuddee koo koy tuddee ku moom. te musuma ko gis. xaw ma ko après laa dégg ay njabootam ñu naan kii. doomam la. ñu rapproché ko quoi mhm. wala ñu jóge Europe ñëw ne maire li nga defal suñu papa tuddee ko tur. Mhm. loolu moom moo am solo. donc donc ñun beneen bi le maire de la ville Timbo. Mhm. Euh, ci conseil des ministres décentralisé. ba président Macky Sall di tabax dispense euh, kii bi jumaa bi. waa jumaa ji dañoo amoon projet ay institut ci biir. dispensaire banque ak yenn ay salle de conférence. ñu ne Timbo loo ci mën a jël mën a tabax naa dispensaire mu jël fonds public mairie ville de Pikine bi ñu bokk ñun ñëpp. Mhm. présente tabax dispensaire boobu biir Pikine Nord. boobu ci compétence commune Pikine la bokk. Mhm. muy sunu ñetteelu dispensaire. donc à droite am nañ dispensaire. Mhm. à gauche daal am nañ dispensaire. au milieu am nañ dispensaire. looy projet dispensaire. am na solo xanaa te api amoo espace. xanaa doo toj kër yi côté espoir di tabax foofu dispensaire alors que ñooñu mun nañ waaxu dem fii wala ñu waaxu dem Touba Diaksaaw mm-hmm. mm-hmm. ñu jege ci kaw mun nañ dem Dominique qui centre de santé mm-hmm. donc en terme d' infrastructure balaa nga koy tabax day fekk soxla bi ne fi Pikine Nord li ñu soxla mooy tali bu mag bi li population bi jooy mooy xataa dañ ci ñëw dañ ci ñëw. waaw te xataay boobu. Mhm. bokk naa ci ñi ko bàyyi foofu. Mhm. ngir yërmande. Mhm. ndax ña fa nekk di jaay. na fa nekk di daan seen doole suñ leen ko xañoon ba ñu jël arme yi. di agressé nit ñi. suñ leen ko xañoon ba jigéen ñi di jaay seen bopp. suñ leen ko xañoon ba ñu jël dugg gaal gi. ñun ñooy doon responsable. borom oto bi bëgg na yoon bu yaatu. bëgg na dem waaye tamit ci nii bëgg nañ mu tàkk. loolu noo tax ma ne sama projet centre commercial bi ma am. deux mille cinq cent places la bés bu demee ba sotti. Mm-hmm. uniquement bu sottee. Mm-hmm. même ba. Mm-hmm. bés bu sottee ba ñu tabax ko ba pare foo nañ ko def nañ conseil municipal bi délibéré na ko à l'unanimité avec un promoteur bi nga xamante ne calé na milliard cinq cent millions. de pour pouvoir tabax loolu. am loolu su paree ba pare. ba ñu inauguré ko ba pare. ci laay doog a wax ñi ci tali bu mag bi. yéenay njëkk dem tànn. fu ñuy Euh, su prolongé wu mhm. su waa tali bu mag cat ba cat tànnee ba pare ñu doog koy ubbil ñeneen mhm. bu ko defee tali bu mag yi kër ya fa ne mhm. mën a jàkkaarloo ko tali bi mu nekk un grand boulevard état bi su mu ne tabax tali bi defaraat ko Pikine Nord nekk véritablement sa vocation de la capitale de la banlieue. juñu nga ko léegi léegi Dominique rond boobu daanaka mooy actualité <laughs> Pikine bi yëpp indil rond bàyyil rond jàppal rond sa digganteeg commune bu pikin noor ak Pikine Ouest. <laughs> alors rond bi jur na coow euh, monsieur le maire lan nga ñu mun a wax tey ci rond boobu ndax yéen sa parti la bokk. Bemba. Mhm. yàlla na ngeen am télé. amiin réew mi amiin yàggatul incha allah. yàlla na ba mën a ñëw ànd ak man. Mhm. jël le décret 96 745. Mhm. ñu jógee lisière des Niayes pour tracer Pikine Ouest. Mhm. wax ne day commencé ci lisière bi jusqu'au centre horticulture. jóge centre horticulture bi def le prolongement ci débouché bi jaar sur la ruelle. ruelle. maanaam mooy mbedd bu motul. xàll. mbedd mbedd xam nga mbedd. mooy rue. mais bu mbedd bi nekkee daggitu mbedd dañ koy wax ruelle ci tubaab ñu ne na nga jaar ci ruelle bi bi féete ci ndeyjooru intersection tali Dominique ak rue 10 maanaam tali Dominique mooy tali bi jóge Dominique romb rond boobu ñëw ba rue foofu mooy intersection bi ñu ne la bi féete ruelle maanaam as mbedd su ndaw si féete ndeyjooru intersection boobu mooy mbeddu Cheikh Anta Diop parce que boo jógee tali bu mag ba jógee tali Dominique. Mhm. jógee mairie Pikine Nord Stade Alassane Djigo. Mhm. romb mairie Pikine Nord. Mhm. romb poste. romb Dominique. continuer ci rond bi. continuer tout droit. da ngay def intersection mooy intersection mooy sële ba yoon. diggante tali rue dix ak mbedd boobu. mooy IPRES bi. sa càmmoñ nga koy bàyyi continuer. gis nga sële ba yoon boobu mooy intersection. ñu ne ndeyjooru sële ba yoon bi. fekk yaa ngi jóge lycée des Niayes. jóge centre horticulture di fële. Mhm. ci medd su ndaw soosu nekk ci ndeyjooru sëlëba yoonu rue Duis ak Tali Dominique. Mhm. mooy mooy medd Cheikh Anta Diop boo jógee medd Cheikh Anta Diop continuer mhm. jëm tali bu mag doo sax laal rond bi rond point bi sa càmmoñ la lay féete. pour nga continuer nag broslu ko ci Dominique bi Dominique bi moo bokk ci. moo bokk ci. Pikine Ouest. Mhm. Pape gi Ndong moo ko yor. Mhm. léegi boo jógee mbedd Cheikh Anta Diop. mooy école privée Cheikh Anta boobu. Ah. boo ko jógee di dem ci Dominique. Mhm. est-ce que da ngay dem ba ca rond-point ba dem Dominique. ñi xam Pikine da ngay fël rek continuer brosu ndeyjoor rek dem bàyyi rond bi sa càmmoñ. donc rond boobu man xëccoo ma ko. dama jàppoon ne commune boo ciy dugg dafa am mandarga bu lay won ne. yaa ngi dugg ci commune. ma imaginer mm-hmm. benn bienvenue maa ko inspiré ci Touba ngay mm-hmm. dawal may eggaguñ eggaguñ nga ne nga jékki-jékki rek seen ñu ne bienvenue à Touba mm-hmm. dëkk Cheikh Amadou Bam ma ne nag Pikine Nord commune la boo fiy duggit war nañu am bienvenue à Pikine Nord mandarga nga gis ko ne ah man de jóge naa buntu Pikine fii may dugg nii mooy Pikine Nord def décoration yooyu mu rafet def ci ay lampe guddeeg bëccëg muy tàkk booy génn ñu ne la bienvenue au revoir à maanaam loolu message la. Mm-hmm. et puis créer benn fierté d'appartenance. Mm-hmm. patriotique à la commune de Pikine. Mm-hmm. léegi nag bu fekkee dafa def jalousie ba ñu naan ñoom ñoo ko moom. Euh, décoration boobu bu leen neexee. ma tabaxal leen ko ca beneen wàll ba. Euh, ñu defal leen bienvenue à Pikine Ouest. au revoir à Pikine Ouest. mais c'est une inspiration que toutes les communes devraient faire pour délimiter les frontières. comme maa ko fi def. ñuy wax waxi toj. loolu du coow li coow li xam la. problème interprétation la problème wut buzz. dañ doon wut buzz ma fekk si leen ci wut buzz bi parce que dama doon wër buzz bu ma ci indi coow li man. Mhm. ngir ministre bi atte ko gaaw. te mhm. dina ko atte lu rapide. Mhm. ndax wóolu nga kom non wóoluwuma le directeur de ANAT. je le dis ici à la rajo. il m'a déçu. il s'appelle Digo. Mamadou Digo. waaw xamut sax mais nom Digo la. mais il m'a quoi il s'est comporté comme un militant de l'APR face à l'interprétation d'un texte, un décret qui date de 1996, contresigné Abdou Diouf Habib Thiam. Ces deux grands hommes qui ont inspiré la décentralisation, qu'il faut rendre hommage par rapport à leur courage mmh. d'aller vers la décentralisation et croire à la maturité des collectivités territoriales. Mhm. ñooñu 96 dañ ko def le décret s'appelle 96 745 mais quand tu vois quelqu'un ki ko jàngal. Mhm. ba ma ko joxee texte bi daf ma ne mais Djigo il est fou quoi mais lii. centre horticulture bi par vol d'oiseau ngay piqué dem ci prolongement boobu. Hmm. le Pikine Ouest ne peut pas prolonger ba ba Canada. t'imagines Wanba nga ne Pikine Ouest moo ngi commencé route nationale jël àll bi ci ndox mi. Hmm. romb Pikine Nord wuy ba Canada ndox moomu yëpp Pikine Ouest ko moom. te yow texte bi nee la route nationale croisement Cambérène. Hmm. foofu ngay commencé jusqu'au centre horticulture. jusqu'au mooy Baca. ba ca centre horticulture ba. ok juggo toog ne da ngay romb centre horticulture bi. ma hmm. ne ko soit da ngay alpulaar ngay tekkee mbir mi wala politiquement nga koy tekkee mais ça ne passera hmm. dama bëgg sa intention yi nga teg ko ci suuf. Hmm. devant le ministre Omar Gueye. ma ne ko nag maa ngi leen di xaar terrain. léegi nag lu proposé une visite de terrain. parce que ñu koy interpréter dëkkuñu Pikine xamuñu Pikine. 96 j'étais maire dans commune. Bretelle kii boobu ñu fa tabax tali bi jaar buntu arène bi. Mhm. man ak Pape Góor gi Pape Góor a Thiam. Mhm. ñoo ko tracé. ancien maire Pikine Ouest. ancien maire Pikine Ouest. Mhm. su Wade. man ak moom ñoo tracé moom mu jël fii fi ñuy wax naan kiw bâche xaw ma lan bâche. boo jógee cité Sotiba di ñëw. seel xol waru buntu waru buntu Pikine bi buntu Pikine surtout surtout baa bi. nga ñëw romb continuer. xel comme bâche xel comme bâche nga prolongé ko. Pape Gorgui Ndong Pape a Thiam. Mhm. foofu lañ démarré ak waa service ADM ñoom ndem ñoom Adama Gueye. Mhm. xamatuma sax fu mu nekk ci àdduna. Mhm. Euh, moo doon le directeur des services techniques de Pikine ñu ànd ak waa banque mondiale Précol ñu dox ak suñu tànk chauffeur xaar ñu la dox ba sës ci ñax yi. dëppaat jëlaat oto yi wiir yi jaar euh, mbeddu Dominique bi. prolongé ñëw noonu ba ci euh, station ONAS bi xool ne fii bu fi jaaree kër yi yëpp day toj. sama biir commune. man leen benn kër ko fi toj nañ ko yóbbu beneen boor ba. ñu ne non loolu dafay laaj ay xaalis parce que ndox mi ñuy jaar ak jaaroon ko fii am na benn tali onance ñu fël usine man leen du fi jaar mhm. ñuy yëkkati ay kër di leen yóbbu ay ñaxu rab ak yooyu mhm. bàyyi leen leen fii je me rappelle audience saa ci wut ak le président Abdoulaye Wade mhm. que je que je félicite que je rends hommage un grand homme a compris que xam lu mu wax mais kan mooy maire dëkk bi du jaraa ñu ne waaw mu ne mais defal leen ko li mu bëgg ñu ne ko mais monsieur le président le, le responsable banque mondiale il dit monsieur le président kooku ça va ça va nous coûter à peu plus de deux fois huit cent millions mu ne après faites ce que le maire vous dit na jaar foofu trois tracés la woon benn bi day yëkkati ay kër mhm. benn bi mooy fi arène bi jaar beneen bi moo gën a cher mais day jaar ci biir ndox mi di dem mhm. fële ji euh, après ravin mhm. après centre sauvegarde dugg PAI foofu la waroon jaare ñu ne noonu nañ ko jaarale noonu. Mhm. man mi fekkee loolu en tant que maire. Mhm. boobu Pape Gorgui Ndong defe naa moo ngi Fatick dikkagul sax Pikine bu ñëw nekk maire naan ma comprendre wala di yëg ni ça pose un problème. Mhm. ñoo ngi leen di xaar rapidement ñu wàcc ñu wax leen histoire Pikine. histoire àll ba histoire fi gargamboose yi nekkoon. ñu xam ne sunu mag ñeeg yooyu. ba ci maam Seydina Limam Laay ba muy ñëw ndingala. la salaam. di exi di en compagnon bi di njëkk a faatu mu jël ko yóbbu ko ci cimetière Pikine yooyu tey. Mhm. suul ko fa looloo waral foofu doon cimetière. Mhm. moo tax rond boobu di fële ci arène maa ngi ko tuddee rond point Seydina Limamou Laye. Mhm. rond point boobu ñuy wax Pikine Ouest ñoo ko ñoo ko xamuñ sax nu mu tudd. ñoo ko tuddee rond point Seydina Issa Rouhou maam Seydina Limaam alay salaam. Mhm. moom lañ tuddee rond bu mag ba. Mhm. doomam di taawam di Seydina isaa Ruuxulaay. Mhm. moom lañ tuddee rond point boobu ci Talmat. pour dire que. Laayeen yii ñoo tax cimetière Pikine bi am. am na solo cimetière yi nag bokkul ci Pikine Nord. donc ci ñoom la bokk tali bi ci digg bi. bi dox ci buntu cimetière yi. mooy la limite naturelle entre Pikine Nord. et Pikine Ouest. la preuve. arène nationale bi bañ koy inauguré président Macky Sall nekk fi état bi nekk fi protocole présidence nekk fi. ñoom ñëpp ak ministère sport ak préfet ak procureur ak tribunal ñëpp dañoo ñëw mhm. ñu ne monsieur maire Amadou Diarra mhm. étant opposant mhm. man maa war a def discours de bienvenue lu tax jëluñu ma sànni teg fale woo Ablaye Timbo wala ñu woo Pape Gorgui Ndong ne comme y a problème de kii nañu jël ku bokk ci ñun mais man la laaj discours ma bind sama discours jox ko la veille à deux heures du matin président Macky Sall ñëw un bon républicain ma def un discours Euh, Ahmed Aydara. Mm-hmm. daa am benn politicien bu ma doon gratifier naan Amadou Diarra dem na APR. c'était en deux mille c'était en deux mille. yàggul dem dem seize. dix sept dix huit dix juróomi ak ba léegi. donc man j'ai me suis comporté de manière républicaine. Mm-hmm. pour pouvoir accueillir le président de la République te ñoom ñoo ne man maay wax. Mm-hmm. kon tey Pape Gorgui Ndong ci ci invité yi la bokkoon toogul sax ci tribune bi. man ak ambassadeur chinois ak Matar Ba ministre ak président Macky Sall. Mhm. ak directeur président CNG. Mhm. ñun ñoo toog ci tapis rouge bi ci kanam. Mhm. ñi ci des ñëpp gouvernement bi ba ci premier ministre Boun Abdallah ca kaw tribune bi lañ toog waaw keroog ñu ne mana ñu dem ba tey ñu naan ñooma nañ def attention. ok Pape Gorgui Ndong laay lancer un message. ne ko Pikine Nord kii si frotte si Pikine. ma raq la. na wax directeur de cabinet mu yem. ñu ànd ñu tracé mu wax ses services fii la yem. Mhm. la preuve dëkk ba ñoo ngi def pétition. di wax ne xoolal même bu fekkee ne fee ngeen bokk. bugguñu ko. même bu fekkee ne da ngeen wax ne ñun fee lañ bokk Pikine Ouest bugguñu. ñun Jara lañ bëgg mu doon suñu maire Pikine Nord lañ bëgg a bokk. pétition yi je crois que kër yëpp a ngi koy signé jamono ji. su paree dinaa jël yëpp jox ko président Macky Sall. ne ko mu atte leen ñu lii. ndax gox bi ñu fiy dund. nee nañ ñun lañ gis. ba ñuy joxe ceeb yi. Mhm. quartier Ndiassane Mamadou Diop Lénine. Mhm. maa ko woo sama bureau. ak chef de quartier yëpp muy dix huit chef de quartier. Mhm. quartier boobu ñuy wax maa ko tuddee quartier Ndiassane Pire. Mhm. góor gu ñuy wax gaaw su Jaxate moo ma jox tur bi. Mhm. ma nommé Lénine chef de quartier. maire bu bees ñëw remplacé ma muy Momar Fall. ne ko quartier bi reconnaître ma ko parce que c' est pas un quartier c' ma dellu si defal ko attestation de nomination de chef de quartier di ko jox indemnité. aujourd'hui on parle de dix huit quartiers ba état bi reconnaître quartier bi. ba buy séddale ay dund. day jox. dix-huit quartiers dund. waa Ndiassane dañoo am seen quota am seen comité de distribution des vivres de l'État. waa Pikine Ouest woowuñu leen di leen jox. kon su paree ñu naan dañuy jéggi di fa am. parce que peut-être am nañ un projet bu ñu bëgg a laaxaale foofu. Mhm. nañu xam seen place te yem fa. léegi ñu jeexale ci euh, recette yi nga xam ni yaa ngi koy xaar ba tey ci euh, arène nationale bi nga xam ni foo toll yaa ngi koy jooytu ah monsieur le maire. alors tey euh, fan la recette yi toll. amoo ci lenn loo xam ne mën nañ ko teg sa loxo ba tey. bind naa benn lettre président Macky Sall wax ko coow limite boobu. Mhm. parce que du Pikine OS rek moo ñu attaqué. Pikine Sam Notaire. Mhm. avenue Serigne Fallou Mbacké mooy tali bi jógee stade Amadou Barry mhm. jaar fi Malick Gakou dëkk mhm. Sam waaw moom mooy avenue mhm. Serigne Fallou Mbacké texte bi dafa wax foofu avenue Cheikh Serigne Fallou Mbacké jusqu'à la route des Niayes boo jégee route des Niayes ngay dem Canada ok mais Sam Notaire dafa jéggi jël Canada jël lycée Pikine jël école euh, élémentaire bi jël tribunal bi dem ba ca rond bi nga xamante ne la ko précole créé. Mhm. mooy tracé boobu ma lay wax ne maag Pape Goro Thiam ñoo ko tracé woon. Mhm. ñu ne rond point bi bees boobu en 2009 ko tabax. nee na rond boobu mooy sunu limite alors que le décret bii délimité c' était en 1996. Mhm. Abdou Diouf Habib tali boobu amagul woon àll la woon xamuñu woon sax ndax dina fël foofu. ñun ñoo ko fëlale foofu ca rond point boobu. rond boobu laa tuddee Cheikh Omar Foutiou Tall. kon mhm. Sam Notaire warul jéggi route des bay tudd Canada boo demee ci décret bi délimitation Pikine Nord mhm. ñoo la wax route des Niayes mhm. ba tali bu bees route des Niayes ba tali bu bees route des Niayes ba tali bu bees ñun si suñu délimitation tudd nañ Canada ñoom seen délimitation tudd ñu ci benn yoon kaa ba ciy teg naa ba ciy teg daa kon lu ñuy moomaale Canada il faut qu'il j'ai écrit un courrier au président de la république sur ci grief boobu. Mhm. bind naa ko ci affaire arène nationale bi. Mhm. bind CNG bind ministre sport bind ministre. ba léegi ñëpp bind naa leen def naa ampliation préfet sous préfet gouverneur. je suis toujours légaliste. di leen mhm. déglu ba tey. léegi suñu projet délibération bi commune Pikine Nord def. bind nañ ko depuis cinq mois amuñu réponse j'ai écrit au président Macky Sall. yaa xool la patrie avant le parti. le a ces su ñu amoon premier ministre ministre yi comme tontu ñoo damay jéggi bind premier ministre. Mhm. mais bind naa président Macky Sall pour que. su mhm. suñu problème mu regle ko parce que mun na jur laalante. ensuite dafa jantalul nga am un maire bu askan bi fal mu nekk opposition bi way yalwaanul di liggéey ñu koy bloqué moo war am quatre-vingt-dix millions de recettes tey boo amoon Wally Seck bu amoon ASC bu ko tëggaloo soirée foofu day fay taxe sur les spectacles c'est la loi qui le lu waa wax président de la République mënu ko dindi assainissement ak ministre sport Matar Ba ñuy tergiverser pour un document qu'il doit pour dire que le comité de gestion est là. donc yaa ngi xaar ba tey. comité de gestion bi mënuñoo ko def te jiitewuma ko en tant que maire de la commune yi ñoo bokk ki jiite promoteur yu Sénégal yëpp baabu. Mhm. Pikine Nord la dëkk <laughs> ki jiite entraîneur de lutte yëpp euh, Mbaye Diallo. Mhm. Pikine la dëkk yàlla dafa def Pikine Nord. xam nga moo tegu quoi moo moo fi nekk moo waaw ñun ñoo am ah, moome vent nañ ñu bàyyi <laughs> waaw léegi nag j'attends que le président de la république ma répondre wala mm-hmm. corona bi moo tax ma ma freiné mm-hmm. commencé woon na waa six quartiers sur les dix-huit mu des sama douze quartiers mm-hmm. pour wax la ne dañu war a dem jihaad lu mu jar pare naa il faut que bu combat ubbeetee ñu war a dugg arène bi promoteur bi na fay taxe spectacle noo du tëgg suñ ko bàyyee mu tëgg. Mhm. san préalablement demander est-ce que fay na ses taxes parce que préfet bi ko war a autoriser daf ko war a wax est-ce que fay nga BSDA bu dee soirée la est-ce que fay nga taxe municipale su le spectacle ñaar yooyu boo ko indee ma doog la defal autorisation boo ko indiwul dàq dàq naa la yéen a ngi leen di xaar donc préfet bi ba ma ko interpellé Moustapha Ndiaye dafa ne autorisation combat làmb yi xaw ma fu muy jógee man daal dinaa dégg ci télé yi ne am na date dinaa dégg ci télé yi ne police ñëw na fa. Mhm. c'est quoi ça on est dans quelle république. la manifestation doit être autorisée par le préfet du département. Mhm. mais bu dee ministre de l'intérieur la aussi c'est du temps de Aly Ngouille laa leen bindoon lettre tontuñ ma bon dinaa relancer peut-être euh, jeune là. Mhm. Euh, Félix xaw ma nan John. Abdoulaye Félix John. ah Antoine Antoine Félix John. Mhm. xëy na moom bu ma ko bindee comme juriste la. Mhm. dina mun a wax écoutez. Mhm. écoutez avant d'organiser une manifestation dans cette commune. il faut que le promoteur de la manifestation s'acquitte de ses taxes. loolu mooy démocratie. bu ko defee quatre dugg si. bu ko defee jàkk yu ñuy tabax Pikine Nord. nga mën a jënd ciment. jënd a jox leen. mun a yegg ASC yu baax femmes yi nga subventionné leen ay xaalis. Mhm. ñu mun a def seen activité génératrice de revenu. Mhm. nga mun a nag porter say projet xale yi bëgg nañ terrain municipal avec gazon synthétique projecteur am naa ko fii def nañ maquette bi ba pare deux mille vingt et un moom laa leen di may buuñaa parce que ñun sunu mandat jeexoon na ba pare. Mhm. loi bi moo may président de la République doole mu rallongé ko. mu rallongé ko ma ne Pikine am ngeen sax naa leen defar. omnisport de Pikine Nord. Mm -hmm. avec gazon synthétique. Mm -hmm. avec des projecteurs xale yi football ba deux heures trois heures du matin. Mm-hmm. di ay recette muy dugg ci commune bi xale yi di ay talent di fi génn mën a sagal Sénégal. Mm-hmm. ñu mën a am ay Sadio Mané am ay El Hadj Diouf. am na solo monsieur le maire waxtu bu ñu cërale woon jeex na. waxoon la dafa alors dañ lay jox rek juste. Mm-hmm. Euh, moo ñu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sa waa commune yëpp di la jaajëfal bu baax. ak waa Sénégal ñëpp maa ngi wax d'abord président maa ngi wax waa Pikine noor noo leen ma bëggee nu ko raw laa leen bëggee te du waxu politicien du waxu dóor. xam nga moom Lamine Guèye. Mamadou Lamine Guèye ba république des valeurs mu ngi sa kaw daa mel ni ci commune. non mu ngi sama suuf sama rakk la kooku maa ko yar maa ko jàngal wax. Mhm. kooku papaam ak yaayam ba muy xale. Mhm. man lañ ko dénk ma koy formé. mi ngi say tànk de temps yi mi ngi non samay tisit moo nekk ci moom. barki Seydina Mohamed Taro xool ma ko sax bu ñu yeggee ci ba bés ba c'est-à-dire yaa ngi koy may bés sax man xam nga kan gën a tiit. Uh-huh. APR. élection présidentielle huit mille voix la ñu am. Uh-huh. man ma ànd ak ma dikki am mille cinq cent voix. mais li ma gëm man mooy bu dee élection maire di nga gis uh-huh. APR yu woteel Amadou Diarra ndax maa fi gën ci maire. amul benn maire bu bu Pikine Nord war a mun a envier à commencer par le président de l'association des maires. muy Talla Sylla nga dem ba Ziguinchor Ablaye Balde mu toog ma toog en matière de gestion des collectivités locales su ma waxee du wax te du ma wax mu teggi. am na solo nga dem ba ci Talla Sylla ca Thiès. Mhm. nga dem ba ci maire Ablaye Timbo ville de Pikine. Mhm. nga laaj ko sama xarañ ci yoruñ mairie. Mhm. kon Sénégal Pikine Nord fi gën maire. donc du problème ay élection présidentielle lañ may àttee man li ma bëgg mooy dem élection locale. yëkkati sama loxo même bu ma bokkul benn suñ ma fi tegaatee ma xam ne man la ma doon jaayante di fàtte sama bopp di jëriñ Pikine Nord jar na ko. Mhm. su fekkee ne nañ fi jógal ma xam ne Pikine Nord ñoo moom seen yëf tànn mhm. nañ ko keneen. Mhm. man ma dem defi leneen. am na solo am na solo am na solo ñu lay sant bu baax. di la gërëm man sant. jërëjëf jërëjëf gërëm di nuyu sa techniciens yi. di nuyu waa Pikine Nord yëpp. di wax ne maa ngi ñëw Pikine Nord ñu wane comme maa dañoo bëggante. ñu feete suñu saint am na solo am na solo kon mbokk yi ñu jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah rabbi